أغناني الله رب الجن والبشر عن الأنا والأذى بسكر والبشار أغناني الله رب الجن والبشر عن الأنا والأذى بسكر

mu ne noonu rek lay mën a demee. mu ne xamuñu dara lu dul diine. mu ne xamuñu dara lu dul jikko ju baax. mu ne kon doxin wi rafet rek lañ ci yóbbu. nee na mi ngi ciy sant bu baax a baax. mu ne di gën a ñaan bu baax a baax. mu ne tawféex rek. mu ne suñ borom gàttanuñu ak tawféex. mu ne ba lépp lépp lépp yéwén tabarkeel. dara lu ko a am amul. mu ne dara lu ko tee mën a am amul ci àdduna. mu ne lu mën a nekk la. ndax yàlla mooy def mooy dindi. ndax yàlla mooy def mooy dindi. moo ñu gën a xam suñu bopp. mu ne ndax moo ñu gën a xam suñu bopp. moo ñu gën ci suñu bopp. moo ñu gën ci suñu bopp. mu ne noonu rek la demee. jërë ngeen jëf mu ne leen mi ngi leen di di leen gërëm bu baax a baax. mu ne xolam seet na guy ci taxawaay bi. ak doxin wi mu ne mi ngi ñaan bu baax a baax bisimilah na ñëpp tàllal الله الله آمين